aadam moo wax ne waxtaanee wut ko kenn ku koy waxtaanee du ca dugg ndax déggagut benn jotaay bu ñoo wax ñu ngi koy appel téeméeri kaamil man dama jugg fekk waaye di jàng kaamil ci laa màgg waaye keroog nag yàlla xiir ma jënd fas naa yéen def daje boo xam ne incha allah bëgg naa ñu jàng ci téeméeri kaamil leetar ba moom mii laa ko jëkk a jox ba waxtaan tasaaroo ba waxtaan tasaaroo moo waxal boppam ne mosul ko tàmbaleel kenn waxtaan nit tàmbaliwut ko mu sawar caa dugg ndax tiit ñeneen nit wax nañ ma loolu waaye kenn du ko ne ma ëpp naa def ñu bokk ca ànd yàlla amal mbir ma

ama ah, dara lu ma ñemee oote te wéeru ma ko ca du ñëpp boo ko xam gëm ko ndax ragal saflu ñu sooblu yàlla def loola ñu tollaat ca waxtu wa defaat ko mu ëpp loolu nam dayoon ñu tollaat ca sàkkuwaat mu ëpp lool nam yemoon ba naa gi ñu fixé bi trois cent treize fois maanaam ñetti téeméer ñett téeméer lañ jëkkee woon mujj saxal ñetti téeméer ak fukk ñett loolu di dox ba léegi ba tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ña ko fekke woon yéen yéen a ko fekke